waaye li nu dal ci li ma wax ci tabaski rek moo nu dal ci lu mel ni alxaj aj dafa dugganteeg aada dugganteeg adduna ba nga xam ne wax dëgg yàlla yàlla moo xam lu muy nangu nag loolu du nu ñimewuñ ko sax di wax naan yàlla nangul kii wala yàlla nangu loolu xamuñu ci dara noonu te bu nu sañoon it yàlla nangul ñëpp waaye léeg-léeg da ay pratique yoo xam ne xel du ca dal daal coono yi ñuy daj ci aj te yo ci ëpp di aada nga ne le avant nga après xam yow boo amul ñaari billet màkk doo aj billet bi ngay demee ak billet bi nga <laughs> nga xam ni force la moom bu dee cinq millions moo la yóbbu boo amul dix millions moom bay ba ah boo ko deful problème la bala ngaa dem nit ñi dinañ ñëw dajaloo sa kër nga wër fépp di tàggoo jël ay ñeent fukk fukk ak juróom te loolu boo ñëwee la ngay jënd yàlla xam na màkkal dafa dafa seer mbaxane yi nga fee gis dafa seer koo jël fukki dërëmam yi di nga ko jox kaala goo xam ne boo xam ne ñetti téeméer mille cinq lay jël te ñoom faaw dina ko jox te di ko jël yaa tàggu damay siyaar ji yaa rasulallah ren <laughs> nit ñi ñëw di la jox ay fukki dërëm ak ñaar fukk ngay dajale soo ñëwee sëñ bi boo xew li ngay jënd ci mat ci bagage dina xaw a jege huit cent mille wala un million bo ñëwé di sédélé ba mu jéx am ñom dañuy jëndaat ray nak ganale ñetti fan señ bi lil ku lu teg li kenn loolu tax nak ñomit mu ñuy ñuy demandé alaaji nak <laughs> dañ ci sodu nak bo ra balé leen alaaji problème dina am parce que dañ ci dañ ci financé lu lu bare bare <laughs> wallahu mustaan ala kulli hal bu ñu li ñu l'islam santal sant oyof na lool te yomb na lool waaye am na ñu dem màkk ba ñëw sax ñu bari xamuñu parce que mook dem jàkk ji julli ci benn la mook dem jàkk ji julli ci benn